li ci yéenekaay yi. ak Abdoulaye Bob. dal leen ak jàmm yéenekaay yu bari xeendoo tey élection présidentielle yi ñuy waajal yéenekaay bi di Walf Quotidien mangoog processus électoral bi eh, kenn ko càmbar c'est fini eh, ñu dem élection yéenekaay bi ne conseil constitutionnel mujjee naa sowe Sénégal eh, mi ne woon ci jeexi jaaxa njiitu réew Macky Sall mujjee naa dàpp datu élection yi ñaar fukki fan ak ñeenti ci weeru mars 2024 ca la ñu amal tànneefu njiitu réew gouvernement bi jël na dogal tas ko bokk na ci maître Sidiki Kaba moo fa wutu njiitu Amadou Ba euh, mi doonatul premier euh, ministre loi d'amnistie ba mujjee na jàll démb ci assemblée nationale Pastef ne déet wote wuñ ko euh, Walf Quotidien noonee la xëyee tey ci xëtam bu njëkk Sud Quotidien di ñu dégtal élection présidentielle yooyu les conseil constitutionnel moom mujjee na faxas bépp dogal gu tukkee woon ci dialogue national ba woon jàpp ne élection présidentielle yi fanweeri fan ak ban ci weeru mars lañ ko war a amal juróom-ñaari sage yooyu le mujjee nañu sax tënku mars ah, ci la candidat yi fas yéene dagaan baatu askan wi maanaam am nañu ñaar fukki fan ak benn yoo xamante ne eh, daañu jege askanu oh, Sénégal yéen a kaabili yor yor gi xëy duñu dektal ne élection yooyu la eh, la ca tukkee ca jam ñaajo te dundoon yaakaar ca ña fa doon dialogue daanaka eh, conseil constitutionnel mujjee na ko du mooyu yéen a kaabine doon lu oh, dis gànne ci ndodd du njiitu réew mi Macky Sall élection yaa ngoog waaye nag ñaari data taxaw ci jamono ji bu 24 mars doon tànneefu njiitu réew Macky Macky Sall fanweeri fan ak benn ci weeru mars doon tànneefu conseil constitutionnel ana bañ lañ cay jël yéen a kaabiri yor yor gi moom la bëgg a xam di ñu xam leeg Amadou Ba jot nañ ko daanaka euh, jëlee ca euh, gouvernement bi doonatul premier ministre Karim moom mënatul bokk ci élection tànneefu njiitu rew spolié yi ñoom daanaka euh, kenn mënatu leen ca boole mu ngi ci yéen a kaabiri yor yor gi l'évidence li ñu dégtal njeextalu nguurug Macky Sall ne na mu jeexee doy na waar lool république gàngoog daanaka gësëm nañ ko ci jamono ji euh, conseil constitutionnel euh, gantal dogalub euh, dialogue national bi fi woon ba tax na njiitu réew Macky Sall xam le ne élection présidentielle yi nañ ko amal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars gi ñu ne njiitu réew mi yemu ca tas na gouvernement ba jël kilifteef ba teg ko ci teg ko ci loxoy maître Sidiki Kaba di premier ministre yéen kabi di réew mi quotidien processus électoral beeg élection présidentielle yi daanaka caaxaan faaxe récréation ba jeex na juróom-ñaari saa yene ca Sénégal ñoo dakkal li xam le ne nañu amal élection présidentielle fanweeri fan ak benn ci weeru mars gi ñu jëm waaye nag juróom fukki candidat ak juróom-ñeent ñoo cay dagaan baatu askan wi yem ak njiitu réew Macky Sall tànn datu élection di ñaar fukki fan ak ñeent ci mars euh, de jot na sax faxas gouvernement gi fi newoon yéen a kii bi di l'info ne njiitu réew mi Macky Sall mujjee na deltu ginnaaw gannaaw pression gatu tukkee ci juróom-ñaari saa yene ca conseil constitutionnel jëm ci euh, datu élection yeeg njeextalu mandam njiitu réew Macky Sall nguuram day jeex ñaari fan ci weeru avril yéen kabi di le quotidien di ñu dégtal ne élection yooyu le ak juróom-ñaari sage yañu nañu bloqué njiitu réew mi Macky Sall bokk na ci jëfewuñu benn yoon dogal yetukee ca dialogue national ba njiitu réew Macky Sall mujjee xamle ne élection yi le nañ ko amal ñaar fukki fan ak ñeenti ci weeru mars maître Sidiki Kaba moo wutu Amadou Ba ca primature yéen kabi di las ne dogal gàngoog élection présidentielle yi ku yaboo ak ñeent ci weeru mars wala boog fanweeri fan ak euh, benn ci weeru euh, mars doon dogal yi nga xamante moo tukkee ci njiitu réew Macky Sall ak conseil constitutionnel Le Soleil mu ngi ñu koy dégtal àllarba joo xamante ne ay dogal yu bare bare tukkee na ca dogal ba ca jiitu bokk na ci datu élection yi conseil constitutionnel moom euh, xam le ne du ànd benn yoon ci dialogue national bi nga xamante ne jotoon naa tënk ay dogalam njiitu réew Macky Sall tànneef ga mu def ñaar fukk fan ak ñeent ci weeru la gis la ñu war a amal tànneefu xool ka koy wut wutu ci bopp réew mi Amadou Ba moom euh, am na ku ko wutu ca primature maître Sidiki Kaba lay wuyoo projet de loi d'amnistie ba mujjee na jàll ca assemblée nationale yéen kabi di le mandat ne waxtaanee nañ ko ca conseil constitutionnel mbirum datu élection yi bokk na ci élection présidentielle yooyu le daanaka euh, sës na ci jamono ji fanweeri fan ak benn ci weeru mars lañ ko jàpp élection yooyu le ak njiitu réew Macky Sall mi fixé datam ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars la gis euh, ca la ñu amal tànneef yelleefu njiitu réew yéene kabi di 24 heures ne conseil constitutionnel wax na ay dëggam ci jiixi jaxa gi Sénégal di dund ba ba léegi ci datum élection yéene kabi ne ci jamono joo xamante ne assemblée nationale euh, projet de loi d'amnistie ba mu yéena jàll euh, lu ëpp juróom-ñeent fukki député ñoo ko daganal ay dafee jàpp ne euh, ñi nga xamante ne mooy député opposition bi waa PASTEF jotuñu ànd ci googule projet de loi Mouhamed Sagna di Guy Marius Sagna bile projet de loi goo xamante ne jot nañ ko wote démb njiitu réew Macky Sall lam ca jublu mooy euh, fu jaaree fa jégal ay ñooñam yi nga xamante ne dañoo laale euh, ci ay ñaawte fi ci réew mi yéen a bi di turbine mangoog juróom-ñetti fukki bakkan ak juróom-benn ñoo ca rot diggante 2021 jàpp 2024 lépp nag euh, niil na ci jamono ji lépp la ñu jël gasul yéen cabinet projet de loi ba mujjee jàll di projet de loi d'amnistie foofee ca assemblée nationale yéen cabinet di Dakar Times mu ngi ñuy dektal njiitu réew Macky Sall mi taxalikook Amadou Ba doonatul euh, premier ministre waaye nag mu ngi wéy di doon candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba jaajëfal njiitu réew Macky Sall ne ci ndombal tànk yam ko jox ak i tamit euh, sañ-sañ ba mu ko jox ba mu liggéey lu yaatu ci réew mi euh, tey ji la ko dese mooy dem ni baatu askan wi ngir mun a doon juróomeelu président yéen kaabi di critique mu ngi ñuy dektal li nga xamante ne moo xew demb ci assemblée national ak la fa tukkee ci googule projet de loi yéen kaabi suñu lamb nag ci 8 mars bi xëy di njukkal jigéen ñi nga xam ñoo ñooy yëngu ci wàllu lamb ji eh, di ci béy seen waar saay su ne bi ba cosaan ak aada réew mi eh, mun a suqaliku rawatina ci làmb ji bu fekkee ne sax góor ñaa ngay bëree eh, ci biir géew ga jigéen ñi ñoom kenn demul ñu des ci arène nationale ñoom la yéen a yi di suñu làmb xëy delloo njukkal yemook wàccaayu mars